maami diina jigéenam ba naan génn saam dem du fi ndee la bindal leetar jox ko ñaan ko ndigal bala ngaa dem ngir seen ngor ga kal daali bin leetaram ba yo ne yivit bun ma yo naan ko ani xaraantul raxiili dogu naa ci laxar dem ak samay àndandoo ilaa makka ak madina wali xaamali dima aj faqa waaye boo ma joxee ndigal ma dem boo ne jekkil ma toog keroog lu daal di tontu kàddoo mi naan ko boo demee say na mel la boo jekkee say na mel waaye dootu fa am tànga ak bu dee xilaafa ki maa ko jël maa ko yooyu ci sambaay maaw yo taxara koorun mu biina kaala ko naanoo asamaan ak suuf bu doona wuru sa tax ma jox la benn yóbbal te dooto fa am mbég mbaa rasulullahi kala loon bokk dajaloo Seydina Useyni jiitale ñu gàddaay Saam jubli Medinatul Munawwara yeddi bàkka seen maam yonti yàlla Muhammad asamaan jooy na leena ñoom suuf si jooy na leen ni teggi malaaka jooy na borom limaano borom takwa satu nabi ka def na Karbala la la la la la la la la la Abdallah Karbala Khatim Karbala Abdurrahman punya pengadas siapa jadi Karbala la la la la la la la la Rabbul Izzati wal Kibriya Sayyidi Abbas Domi Jafar Sayyidi Muslim Domi Muslim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 ñu keroog ca marwaag weetaay baak yama ragal taxu je, jeex neew doole jeexul nu jee delu nu gina muñ tagal ba ta yalla teg ko ben jaam lu may la ko teg ñu atan ko andandok seen muñ ga ali bayt mustafa ñoom daw ñu keroog ca marwaag weetaay baak mbooyama ragal taxu ñu jeex néew doole taxu ñu jeex dellu nu ginnaaw mun dogal baa te teg ko benn jam lu may ñoom la ko teg ñu attan ko àndandoog seen muñ ga ahlu beyti Mustafa seen wàcce ba Medina bàyyi ko sha waa Medina ko naan jekkil Medina mbaa nga jekki màkka dem foo ci dem sa dëkku maam la rasulallaayi mu may fan ca miin na ziyaare maamam yónneen naan leen maa nga àgg bayti la xaraam ngir dëkkoog néegu yàlla ba ngir di jaamu yàlla borom ba sa abdoulaye bun subay roy buru julli ca màkka asalamu moo la wàcce mbooloom Seydina Huseyn waxtaan moom la doog diggante Yasiid bun Maawiya na mu bàyyoon di kaanu baayam ba ngir iñaan leen ñoom kan nabi Seydina Abdaay bun ngeen ab maa amirul muminina ca Makkata waaye boo bëggee mu wàcc jox la nga jiita jaam yaay sët Rasulullaahi Seydina Huseyn naan ko loolu taxul ma jóg foo man ci jaam moo yàlla tax ma ñëw suma yaboot di rek ben bis maag samay njaboot fe ñett fan bay dogal bay ñoy ci ñun doli doy na mu nan ko jome na lolu am lu ñu bind fileeg fa nu jëm ma anbiya wal mursalina ko loolu do am fa jazakallahu khair do mu rasulullah ja ñaanal ko gërem ko mu waalu allu wa Yezid bun maawe meewam ngaak mbiram yeeg gën car yeeg yu muslimin yeeg baaru iraq ñoom ñëpp bokk dajaloo naan moo te ne keneen ku jiite dina lii ñaaw na ñeemu di leen daal moo gaañu ma àndandook la doon tere lu ci nekk gaaña di ko jëfandikoo fàttiku nu yowmal xiyaama sarsamaara lan na dratimi ganya gaañ a ci fen kër gandan waxtane ñom ñep bokku bokk diisoo naan moo ku no wara wo tekka ci kanami jaam ñi ci yefi yëfit nan xana sat rasulullahi te moo doon useynu la gañ bind fen lettre ba yonne mu jubal makkatal mukarrama ñu kana ñewal bo ñe ñu yow ñolay dolel ndax diine ngi ñaaw samam dem na xulafaa raduna te yaa fi des kuy jiite mbirum lislaam yaa ko ci gën a yey Aliyu sa baay Fatimatu ko jutta moo di doomi xayrul anbiyaa yi lettre bu ñëw mu jàng den taral li man sàkku maa xilaafa mbaag daloog dayoog daraja ci àddina foo mënti jaamoo yàlla tax ma ñëw ñew ba baytillaahil haram, ta doy na taxul gaña baye sen lettre toftale ba jame nek sen lettre ñew ba mujj lettre ba gaña nan sunu mujj lettre ngi ni bañu ñu bo ñek bo boo wona la nga jité diine jam ñep yow lan yaakar waye bo ñewé bo ñewul mujj lettre baangi waye bo dikul daan la ëlëk yowmal xaam ñu la su baba samaam taxaw ak mboolem jaam ñëpp bokku teew daan yàlla teel sunu digganteeg wa moonu seetaanoon la xadra bay na naas bil ulmi wal juudi ñun tooñ moom lan yaakaaroon mu jiite jaam ñi bañ na nit ak jinne malaaka bokku samaam taxaw mboolem jaam ñi kenn keroog su fa ma da jawaabu ko indallahi ne idin looy tontu yàlla sa ndaw la keroog indi lettre ba moo ko yónni Makkatal Mukarrama suma xoroosay na waa taawul baaya doomu njol Makka jàng lettre ba keroog an xooña dana danam ngir xalaatal xeetu yónneen baak yërëm leen keroog ba mu jàngee lees la ca ndaw la dikk ci Seydina Muslim nu xayloo bin Abi Taalib bëkk ne la doomu baay tax la ci moom moon ko lettre mu jàng tanaan ko luy sa xalaat gaay ëllu iraax kaw Seydina Muslim naa ne ko joxoon ndigal ma jëf loola war yaay sunu yaakaar tey farsala ma baraarato la bi a jaabom bi mu boole lettre mbaag muslim ak ndaw la ndoon lettre ba ñoo delloo tontu la man ko waa kaw nu maa ñene biir kaw fa na fa teg naa ko fa lu waay ji ci diine laaj leen ko Seydina Muslimul Xuyloo bin Abi Taalib ne doon imaam ba ma ñëw insha maa ngi topp ci ñoom waa alu ija ñëpp dégg waa maaka dégg ndoo ko mbir ma tiisle ñu ko banu ma yata bettoon sa baay Alioune karama la wacho bom ko ci njulum ajjuma ca kawfa ta al ilaaq kursi la la wax sa ñom kon bul dem waxal la ay da xaqiqa moolam jabaram da do ko jox tooke te jaadatu jabaram ja war na mu naan la xam dan ma wo waye dan wa woo munu dem waaye dawa mu ngi xeex keroog la zakki na jigéenam ba ñëw jàkkaarloo moom te naan ko weeru mu xarramay ne ngi nii te ñoo bañ dem ngir newoon nañ tireen ñuy tuur sa deret te amoon na mandarga bi jibril yotoon sa maam yoon ti Muhammad bàyyi kook Faatimatu wusey naan ko yot ma seet su seex la woon ci lañu bind wusey nu boo xonqee ñu xam ne ab demam jegeñ na keroog la zakki suuf sama mel na deret سيدنا حسين أنك هذا حسين يكون حسينا غيره أو مرة مرة هذا فتجح لنا ما لن رحيل mu ngay daal xel ma ko mën naa Ousseynou man man am weeru muharram meneen man sadi xali xawli jaddi ngir dëgg kàddu maam waaye ma ko bu nan la mana togo dogal ba sobi yalla bur bi mom jam ni fa innoo faa'ili lima yuridu jigéenam ba daal di jooy tana ala inna shawqi fil ta kama wa dami jala yaqti min al wajji indama wala ma taali alima jilika bon xutbul ayni abdili jima bi dima Ablaay bun so daal dellu ñu kanaan ñëwal jéema yebbal Useynu ndax mu bàyyi yoon wi